international seneinfo point net dalee nag jàmm ci seen flash d'information euh, du mardi 5 euh, décembre 2023 dañ koy commencer rek ak euh, sommet bi nga xamante ne Macky Sall démb jiite na ko fii nga xamante ne moom mooy Ndakaaru mu nekk sommet des dirigeants libéro d'Europe et d'Afrique Macky Sall dañ yëkkati na ay kàddu di xam ne ne di woon woon njiitu réew africain yi ak parce que ñu entamer les démarches li idéaux démocratiques donc euh, ñu xeex li nga xamante ne moom mooy populisme radicalisme ak extrémisme violent loolu Macky Sall euh, woote donc euh, ñu ñëw rek ci recours bi nga xamante ne Ousmane Sonko defoon na ko Ousmane Sonko nee na mu ngi réclamer li nga xamante ne moom mooy mille deux cent cinquante milliards de francs CFA. ki nga xamante ne pour pour ndàmpaay ah pour ndàmpaay parce que nee na sept cent cinquante milliards dafa bëgg ñu def ko comme réparation dommage intérêt euh, ak dommage mu subir di euh, nga xamante ne mooy cinq cent milliards aussi nekk préjudice préjudice bi nga xamante ne moom moom la subir donc Ousmane Sonko mu ngi ñaax à ce que vraiment ñu jox ko ndàmpaay par rapport ak préjudice boobu nga xamante ne subir nañ ko donc euh, si recours bi boobu nga xamante ne defoon na ko fële au niveau de la cour de la justice de la CEDEAO donc dañ ne ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko mu ngi réclamer mille deux cent cinquante milliards. Euh, defra euh, CFA mm, donc ñu ñëw rek si saisine euh, drogue drogue bi nga xamante ne taayee passé saisiroon nañ ko fi mu ne lu toll si dix tonnes de cocaïne donc ñi nga xamante ne ñoo jiite woon opération boobu noonu ñu ngi commencé feeñ ndànk-ndànk parce que lu toll si fukki nit doomu aadama arrêté nañ leen donc euh, même opération boobu sax ki nga xam ne moom moo ko jiite woon nekk na benn doomu chef d'état africain bu siiw fii si suñu région bi ñoom moom bokk na ci ñi xamante ne ñoom ñoo euh, piloté woon euh, drogue boobu donc ni ki démb parquet bi jàpp na leen mun na mun doon àtte ni ki démb fële si tribunal bu Ndakaaru ñu jeexale rek ci nga xamante ne moom mooy cherté vie bi donc légume ak jën dafa gën di cher di yokk li nga xamante ne moom mooy yaboy bi léegi dem na ba 400 francs boo amul 400 francs ba ba 600 francs doo ko mën a donc euh, mu nekk lu jéggi dayoo cherté bi euh, dund bi donc li la ngeen indi lool ci seen flash d'information waaw ñu ne di jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi